alhamdu lillah ñoo ngi koy sant moom buur bu màgg bi di boroom asamaan ak suuf di ko jéggul suñuy tooñ ak suñuy bàkkaar bàkkaar yi ñu def ak yi ñu wax ak yi ñu gis ci suñuy bët ak bàkkaar yu ñu dégg ci suñuy nopp mbaam mi def ko suñu benn cër ñoo ngi koy jéggulu yépp di ko ñaan ndimbal ci lii nuy tàmbali di beesal sunu ngëm ci yàlla ci moom te duñ ko wet di mukk di ko sellal di ko ëppale bépp melokaanu manki di di ko sabbal di ko kañ di ko wéetal di seere ne amul kenn kuy ilaa ku su war a jaamu kuy buur ku dul moom yàlla mu màgg subhanahu wa taala di seere moom rek moo yor lor ak njëriñ di seere ne moom ki sàkk lépp lu am rabba kulli shay'in wa malikahu mooy ki seere mooy ki sàkk lépp lu am tayit mooy ki moom lépp lu am di seere ne moom moom kese mooy ki xam xaybu tey ak ëllëg di seere ne sell na walis bépp melokaanu manki te bépp melokaanu mat ci moom la dëkk di seere ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ndawama moo ko yónni waaye ab jaamama ab soppeema di seerale sayyidina Muhammad moomu sallallahu alayhi wa li mu andi lépp dëgg la alquran di nga xam ne ci moom la ko yàlla mu andil nu mu tàmbalee ci fatiha baqara ba mi na jinnati wan naasi di téeméeri saar fukki saar ak ñeent lépp ci yàlla la bàyyi koo waxi sa borom te lépp mooy dëgg gi di seere ne genn manki wala lu ko jege amul ci waxi saa borom yàlla ji amul ci alquran di seere ne alquran li koy leeral di ko firi di ko faram-fànce mooy sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi moo tax sayyidina muhammad moomu ñoo ngi seere ne yonent bi yàlla la moo ko yónni te itam ab jaamama te itam ndawama a loolu yéen mbokki jullit yi man seen mbokk Abdoul Aziz Souleymane nuyoo nuyoo bi lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw nuyoo bi bala maa wax li na ci sama dënn dama bëgg a yëgle sama tolluwaay maa ngi wax ànd ak xol bu naqari ànd ak jaaxle ànd ak jaxasoo ànd ak tiit maa ngi wax ànd ak xol bu naqari xol bu naqari ndax wax ju ma dégg joo xam ne ku ko waxoon sama ndey sama baay ku ko waxoon sama sëriñ bi ma gën a fonk dinaa xam ne tooñ nga ma waaye naqaroo du agsi fii ci li may yëg akub jaxasoo itam ba daanaka sax li may wax mënuma koo contrôler xaw ma ko jaxasoo waaye itam tiit nga xam ne lii di xew ci réew mi su dakkul bépp xeetu musiba bu mos a am ci kaw suuf mën na noo bett am fi yàlla tere jaxasoo am aw naqar ànd tiit ci mbugalum saa borom yàlla mbaa du wàcc suñu kaw bu dee wàcc lu muy doon kañ lay wàcc lu muy mel yàlla yàlla jéggal kàddu yi nga xam ne moom laay bëgg a yëkkati nag ci melokaan yi ma wax laa koy yëkkatee wante dama koy jëmale ci waat waa Sénégal gépp tàmbale ko nag ci sama sëriñ su baax si nga xam na dama leen a fonk te bëgg leen ngir yàlla te wormaal leen su baax si nga xam ne dama leen a fonk te bëgg yàlla te wormaal leen ma bëgguma wax ci seen kanam lenn lu ñagas mbaa lenn lu amuli teggin waaye nag tey jii moom wax dëgg yàlla faaw ma wax te mënumaa contrôler yi li may wax foofu laa toll may ñaanum njëggal ci ñoom ak ci képp kuy dégg kàddu gi te dégg ci loo xam ne lu ko neexul la damaa dégg lu ma neexul loo xam ne moo ma àggale ci ñetti melokaan yooyu mooy naqar ba fa naqar yem ak jaxasoo ba fa jaxasoo yem ak tiit nag balaa may wax yëkkati kàddu yi damay jëkk laajub laaj laaj bi nag képp kuy dégg kàddu gi laa koy laaj ngay ab tijaan ngay ab murit ngay ab xaadir nga bokk ci ibadur rahman nga ci falaax nga bokk ci daalul istiqaama foo mën a bokk tey bu bu nekk ci biir l'islam maa ngi lay laaj te laaj yooyu nag moom laay jéggulu sama sëriñ su baax fii ma tàmbale laaj bi ci ñoom te wallaay du ay ñàkki teggin jaaxle rek la ak naqar ak tiit may laaj xalifa ci waawoon su fekkoon dafa am ku bokk ci waa senegal gis mbindum maam alxaaji Malick si radiallahu anhu xool ko ba mu neex ko mu ne lii seen xay maa si wax fii lii du dëgg amul su boobaa xaritam ci waaw nu muy def ndax am na ci responsabilité ña ko wër lu ñuy def ndax am na ci responsabilité ndax danañu wax ndax danañu def am dañuy bàyyi mu jàll sama sang ya sama sëriñ ya doom yi ak sët yi ak sëtaat yi rek bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp laay laaj laaj boobu walbatiku ak teggin yu mat sëkk di ko laaj waa tuuba di laaj waa Touba tàmbalee ko ceeg kilifa bu mag nga xam ne sama soppee sama xarit xam na ko xam naa ko su fekkoon dafa am ab sénégalais boo xam ne dafa jël mbirum maam borom Touba radiyallahu anhu xool ko ba mu neex ko mu ne sëñ Tuubaa lii mu wax fii du dëgg kon luy xew da doon lépp mu ne doon lépp mbaa doon caaxuraan bu ñu waxoon loolu ci biir Sénégal te nekk ñu ci biir réew mi kon su boobaa xalifa bi jiite Tuubaa lu muy def ak lu muy wax am dee bàyyi mu jàll nañ ma jéggal ñu ko wër ay kilifa la ñu te waruma wax ñoom nii waaye waaye kon su boobaa ñi ko wër di ay sët ak i sëtaat ak di ay ay cheikh yi murit mbaa ay cheikh yi lu ñuy def lu ñuy wax am dañuy bàyyi mu jàll ñaari laaj yooyu sama ñaari sëriñ yi ma wormaal te bëgg leen laa koy jëkka laaj wëlbatiku nag laaj ko képp kuy ab sénégalais képp kuy ab jullit muy wax ashhadu an laa ilaaha illallah ngam murid ngam xaadir ngam ibaadu rahmaan ngam falaax ngam daal si xam nga bokkam seetatuma loolu ab jullit nga bu dëkk Sénégal ak Sénégal ni yow wax wax ji ci sa wayju sa baay sa sëriñ nooy def wax ji nag damay bàyyi ngeen déglu ko ma door a jàll asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki jullit yi maa ngi leen di jégalu bu baax bala may commencé sama vidéo maa ngi leen di jégalu maa ngi leen di jégalu maa ngi leen di jégalu ci wax jii nga xam ne moom laa leen bëgg dégtal bu ma leen dégtalee wax jii ba ngeen déglu ko ba pare dinaa ñëw continuer sama vidéo insha allahu taala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim am na loo xam ne ci alquran du dëgg de mm. amul de léeb la léeb yàlla moo ko libre mais c'est pas vrai mm. c'est une comme téléfilm bu ñu tii rek nga xam nga théâtre mel na ni dëgg la mm. mais du dëgg dañ lay wan nga xam ne lii am na waaye yàlla da doon libre ci alxuraan di taaxuraan xam nga isonge di filaale noonu pour ngeen xam màggaayam loolu la ci jublu mais c'est pas vrai donc la ilaha illa allah allahumma la tu'akhidna bima fa'ala wa bima qala as-sufahaa'u minna allahu akbar mbokk yi kii moo di xaj kii moo di mbaam kii moo di mbaam xuux yàlla seede na ni ab xaj ak mbaam ak mbaam xuux ñoo gën jëmm ji ñoo gën jëmm ji kii moo bon kii moo di doomu xaraam te dinaa li tax ni kii moo di doomu xaraam Firawna ak li muy yées yées yées mos a yegg fii ak yàlla dama ni Abu Jahl bi nekkoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu ne yonent wasalaam def ko ci Abu Jahlin Abu Jahlin mos a yegg fii ak yàlla dikk reewande nit mosu koo tax toog ci kaw suuf di ko wax yàlla allahu akbar waaye fii way Sénégal mbokk yi maa ngi leen di ñaan di leen ñaan ngir ñaan ngir ñaan maa ngi leen di ñaan fépp fu ñu yaakaar ne vidéo bi bu fa jaaree ñi jiite sunum réew mën nañ cee teg bët nan leen ko fa jaarale ñi nga xam ne ñoo jiite sunum réew bañoon sunu xel dal ci ni sunum réew am na yoon ngir yàlla wax ji na yegg ca ñoom képp ku gis yoon woo xam ni manees na caa jaar ba wax ji yegg ca ñoom na fépp jaarale loolu laa yàlla na yàlla seede na ni bokk julli na fa yebal jàmm te ña ci génn àdduna yàlla yërëm leen wax yii bu deful bu xewee ci sunum réew bu mu ñu ndax ñu mel nii dong mooy merloo yàlla ba muy def li muy def ñëpp ni teg allahu akbar mbokk yi ñaar yii leen ci mën a am ñaar yii leen naa ci mën a am moo tax man vidéo bi ngir yàlla maa ngi leen di ñaan nunu mën a def ba ñu mën koo envoyé ba mu yegg ci ñi jiite sunu réew nga leen ko def ndax ñaar yii laa bëgg wax ni ñoom ñaar ñii benn naa ci mën a am sunu njiitu réew nag ñooy tànn ba xam ban moo ci am bi ci nekk mooy. Ahmad Cissé nii ak ñi mel ni moom dëkk see jël suñu borom suñu jëmi borom di ca teg loo xam ne kenn ji moo ko wax bàyyi kenn dëkk see jël suñu yoonu islam di ca teg loo xam ne kenn ji moo ko teg ci bàyyi kenn dëkk see jël suñu diine ji dëkk ci wax loo xam ne kenn ji moo ko wax ci tariqa kenn dëkk see jël suñu téere bii di alquran di ci wax loo xam ne kenn ji moo ko wax ci téere kenn ñi nga xam ne ñoo ci ñëw ci Sénégal gii dëkk loolu ñaar yii leen naa ci mën a am sunu njiitu réew ñoom ñi nga xam ne dañoo jël ñun sunu doole yëpp jël ko dajale ko jox ko sunu njiitu réew mi yéen yéen lañ jox sunu doole nan ci jóg nan ci jóg nan dëpp lii comme que kenn nanguwul ko laal sa yëf ñu ne yàlla sunu borom la alquran sunu téere na gannaaw alquran sunu sunu diine la bu ko kenn la sunu njiitu réew laa wax nan ci jóg bu fekkee ni mënuñu cee jóg mënuñu cee jóg mënuñu cee jóg wallahi azim li imam ndaw waxoon rahimahullah moom la ñuy waxaat li gën a ndaw mën a joxe loolo nu yaakaar ni moom la ñuy jox suñu borom mooy suñu bakkan yi lii la ñuy waxal ku deewul tey suba di nga dee maa ngi ñaan sama bopp di ñaan mbooleem ñi nga xam ni yàlla ñor na leen diineen ji ñor na leen yoon islam ñor na leen maa ngi leen di ñaan ngir yàlla ngir yàlla bu fekkee ñi jiite suñuy réew terewul pour lu mel nii nag nag ndax ba léegi ñoo ngi wuti information maa ngi am yaakaar ni Ahmed Cissé nga xam ni moo wax lii mu ngi diggante Sénégal ak Gambie diggante Sénégal ak jamono ji de wallahi wa billahi wa tallahi wallahi wa billahi wa tallahi sunu ñaari yaram bu tam koo woon ci jamono ji ñu nekk bët ñu nekk bët ci jamono ji tàqalikoo buy am suñu diggante genn lu lay wadd tàqalikoo door a am wallahi alladi la ilaha illa hu ginnaaw loolu nag bu amee nag ñun bu fekkentee ni dañ caa génn àdduna xam nañ la ñuy tontu yàlla bu fekkentee ni dañ nga ca faat bis bu ndaje yàlla xam nañ la koy tontu kenn mës ñu ne wax wax jubel ni ñu koy bàyyi muy dox ci kaw suuf dama ne suñu jiitu réew ñoom ñoo war a jóg ci bii bu fekkente ñoom terewul pour jóg ci laa wax bu fekkee ñoom terewul pour jóg ci bu fekkee ñoom terewul pour faj lii dama ne ñun ñu bere nag ñun pour joxe suñuy bakkan bu dee ay mbiri kaso ay mbiri nangam ak yeneen ak yeneen nangam sangam yooyu noonu dama ne li gën a ndaw laa wax li gën a tuut mooy suñu bakkan bakkan moo gën a ndaw ndax dañoo leer ni nag ku deewul tey suba du nga ji te ña deewoon Badar gënuñu ña deewoon Uhud ñooñu gënuñu leen ndam leen ñooñu gënuñu leen ñooñu tolluwul leen sax far ci wex wax ji dégg ngeen sax ki nga xam ne mooy ki jëkk a wax te naqarlu bu baax a baax te war a naqarlu itam te naqarlu it doyut waaye dégg ngeen wax ji dégg ngeen wax yow ju béy wax jooju nag moo tax may laaj sama kilifa yu baax yi waaye it yemalewu ko laaj bi ci ñoom damaa tàmbale ci ñoom waaye day jàll ci mbooleem sëriñ yeeg xeeti xalifa yi ci tariqa yi yépp yépp ñu te Kawlax Ceenaba ñëpp nag ci gàttal Njaasaan ñëpp ci gàttal rek bàyyiwuma kenn kenn kuy ab xalifa wala ngay ab sëriñ wala taalibe bi topp ci laaj yooyu ma laaj ñaar laaj yooyu ma laaj wàcc yow nag laa leen ko laaj waaye itam wàcc si ba ci ñi jiite association yi ka jiite jamaatu ibadu rahman ka jiite jamaatu falaax ka jiite daaru istiqaama ak ñi ñu am ci ay taaliba yu topp ci ñoom yoo xam ne ñu ngi déglu ku tudd diw loo mbaa diw laam mbaa diw ka ñu saaga la tànc la xas la tey nag dégg nañu lii yéen kilifa yi dégg ngeen lii yéen ñii volontaire kilifa yi muy ay murit muy ay tijaay muy ay xaadir muy ay ibadurahman muy ay falaa muy ay lu ma doon dégg ngeen lii dégg ngeen lii wax da ngeen tam sunu mbokk mi ci commentaire dégg ngeen lim ci wax mu ngoog li nga xam ne mooy wax ju ñaaw di nga xam ne moo tiitloo képp ku ku ku boroomam xel te amu ngëm moom du ma ci commentaire damay bàyyi rek dégg ngeen ko waaw waaye sama commentaire maa koy jëmale ci eh, mbokk mi nga xam ne moom wax na li mu wax nee na ñi jiite suñu réew nañ tànn kenn ci ñaari yëf benn ñu faj lii ba mu yem fi ñi fay suñu borom bi nga xam ne moom lañu gëm subhanahu wa taala di fay suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam di wax ci moom wax joo xam ne kuñ ko wax sa baay mu naqar la di fay suñu diine ji nga xam ne mu ngoog luñ ci wax kuñ ko wax sa tariqa mu naqari la nga def ci la man nee na ñi jiite réew mi benn nañ tànn kenn ñaari yi faj ko wala buñ ko fajul moom fu mu gis waa ji seen ñaari rajo bu ñu tampaloo genn ko ruut genn ko ruut dana rot dégg ngeen li ko waxe dellu ma ciy jaaraat wante moom da cee tudd ni gannaaw la luy am bu dee dee baax na waaye dee du kaso dee ak kaso nag kaso moom bu dee am ab état moo koy def foofu nag dafa indi ab laaj cim xel laaj bi mooy sunu état bi ndax day défendre kii muy wax wax yu mel nii ba noppi nag aar ko ba ñu gëm yàlla gëm alquran ku yëgoon dal ci kawam sax état bi dalay jàpp tëj la loolu laay laaj bu fekkee ne bi état bi ay luwaam moom moo tëral ni ku ñëw ci sunu réew mi senegal Sénégal wax fi borom asamaan su wax ju rëyee nii wax ci alquran wax ju ñaawee nii bu la nit laalee dañ laa war a yóbbu tribunal dañ laa war a tëj kaso comme ni ko waa ji di junje sunu mbokk mi di junje bu fekkee état bi loolu la wóoruma damay laaj bu fekkee loolu la kon état bi ñun ñëpp am na responsabilité ci jëfam jooju ndax état bi nag noo ko fi teg noo ko fi teg kat état bi imposé wunu boppam ne tey ma ne fi état bi ñi ko jiite dañoo duggoon ci suñu biir biir Sénégal ne dénk leen ma réew mi ma def nangam ak nangam ak nangam ñu dénk ko ko te des ne tuuti daañu duggaat ci suñu ci biir réew mi ne dénkaat leen ma réew mi su boobaa képp koo xam ne dangay ngay soo kàttu wate di ca fal ab état boo xam ne bu ñu waxee ci saa borom yàlla wax ju ñaawe nii wax ci alquran wax ju ñaawe nii da nga ànd te da nga noppi nga dem di taxawal boobu état état boo xam ne bii bu nit waxee yàlla wax ju ñaawe nii ci biir Sénégal wax ci alquran wax ju ñaawe nii li yàlla li wax nii amul alquran ji ay léeb la ay caaqu la hawla wala quwwata illa billah kooku ku koo xam ne kii état bu eh, état boo xam ne bu taxawee ku mel nii day ñëw ci biir Sénégal wax fu wax ju mel nii ba noppi état bi protégé ko ne sañ ko koo wax protégé ko ku ko yóbbu si minaal dal ci mujj ku dal ci kawam état bu dal sa kaw état mel noonu laa ne benn jullit amul sañ-sañu di ko may aw man loolu foofu laa bëgg a tàmbali foofu laa bëgg a tàmbalee ndax waa ji dani kaso kaso nag état koy def état bi nag bu fekkee ne bii li waa ji dafa am te mooy kii moom état bi da koo protégé ba mu wax lii ci biir réew mii te kenn sañu koo laal te ñoo ko garanti état bi mel noonu laa bu ñëwee ngay ab jullit mu lay ñaanu carte boo ko ko mayee lu état ba def yéene bokk bàkkaar ba man loolu laa bëgg a wax loolu laa bëgg wax man damaa jëllale waa ji ki wax wax ji waaye jëmmi journaliste bi nga xam ne moo enregistré la wax ji bi wax ji tàmbalee da da ko war na dagg waru ko war a bàyyi muy àgg da ko war na dagg bi nga xam ne bii daggu ko këru média bi nga xam ne gii moo ko tas ndax ñàkkul chaîne YouTube walla chaîne télévision walla rajo boo xam ne bii am na directeur am na ñu fay liggéey waa ji wax wax ji journaliste bi ko enregistré te daggu ko yóbbu ko ba ca seen këru euh, enregistrement seen seramba seen rajo bu youtube walla bu télévision kër ga waa ji ko wax télévision ak ak ak waa ji ko wax ak journaliste bi ko bi ko bi ko enregistré ak ak télé bi ko génne walla wala rajo bi ñoom ñëpp def nañu njaaxum gu rëy koo xam ne kii maa ngi laaj peuple bi lii lu ciy pexe ndax lii kat jëmul kër maa ngi koy laaj nag tàmbale laaj bi ci sama sëriñ su baax sama di ko tudd teg ci sama mbokki jullit sama kilifa samay kilifa laa leen jàpp kilifa yi nga xam ne ñi nga xam ne ay kilifa diine lañu yoo xam ne imma ci ay tarixa la nekk wala ay jamaat jamiat islami la ñu nekk ñoom it lii luñ ci naax luñ ciy wax ak itam xam ne ñu ñoo waa réew mi te topp ci ginnaaw kilifa yooyu ñee di tijaan ñee di murit ñee di ibaadu rahmaan ñee di falaax lii wax ak luñ ciy def ndax dañuy bàyyi lu mel nii di côté di répété ci biir réew mi waaye nag ñu bàyyi waale xel suñu mbokk mi li mu wax maa moom wax na lu leer nee na fu mu gis waa ji bu seen ñaari seen ñaari eh, yaram bu ñu tampaloo genn ruu dana wadd loolu itam fitna la joo xam ne ji loolu kese war naa tax eh, ñu sàkk pexe ci wax ji te loolu mooy li gën a néew ndax mooy loolu li jëm ci nit ñi kese leen ak ci borom asamaan suuf la jëm ak ci téere bu màgg boobu nga xam ne mooy sunu lépp mu ngoog képp kuy sëñ daara yi am nga wàll ci wax ji kon nag mu ngi noonu wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. bu Tawfekh jugee kenn xamul fu mu yem. gaaw fii ci Tawfekh production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën cee jot si kon dafa mel ne Tawfekh sëñ Tuubaa rek am solo.